lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe ak wér-gi-yaramu doomu aadama ak jote la gu dëgër boo xam ne ci biir natiirul islaam ci boppam ci la dell li ñëw ci ay textes yi wax ci loo xam ne day tax nit ki am wér-gi-yaram ci lislaam bari na lool ñaareel bi ni ko al imaam Shaafi'i waxee te am na mbokk ko junj sànq mooy amul benn xam-xam bu gën a tedd xam-xamu wér-gi-yaram gannaaw boo xamee ne xam-xamu diine jàll na kon loolu marta bu mage mage mage la ci wàllu médecine li ci am nag mooy diggante xam-xamu médecine ak li ñu tudde an nawazil al fiqhiya wala an nawazil al tibbiya sax bu la neexee tudde ko mooy médecine jo jote gim jote ak sharia dafa tax lu bees lu judd ci médecine lu ne war naa am lu jàkkaarloog moom ci fiq ci sharia ngir jullit yi mën koo xam loolu moo tax ci académie yi nga xam ne dañuy ittewoo ci wàllu xam-xam boobu muy euh, almajaami al fiqhiya nga xam ne mooy yi gën a kawe moo xam ba nekk Màkka la moo xam ba nekk Jidda la man yàlla dogal na juróom-ñaari at ngi may fekke jotaay yi majmaul fiq bi nekk Màkka di ca participer itam ni ñu tere seen organisation mooy du boroom xam-xamu sharia rek ñooy ubbee waaye dañuy am commission yu bari yoo xam ne ci wàllu science lañ jëm am ci benn commission bu am solo nag boo xam ne ci wàllu médecine la jëm booy dund loolu da ngay yëg ne complémentaire bi am seen diggante ñoom ñaar dañuy mottalente su amee benn masala mu ñëw aju ci wàllu médecine dañ koy delloo commission boobu commission bi luy liggéeyam mooy jàng loolu wax li mu doon dëgg dëgg dëgg melal ko melal melal woo xam ne buñ noppee rek dañuy xam lii lu mu doon suñ defee loolu seen wàllu génn na ci duñ ne la lii mooy atteb charia seen yoon nekkute loola waaye dañ leen koy delloo ñoo ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam sharia it bu ñu ko jàngee ñoom it bu ñu noppee ne ah kon kat lii fii la féete daal koy mën a jox ab àtte loolu moo tax man expérience bi ma jëlee ci loola mooy eh, saa boo xamee ne borom xam-xam fiq bi dëgg la ki jàng sharia war naa am culture bu yaatu yaatu ci wàllu médecine war na koo am waaye nag mënut te nekk am médecin ki nga xam ne dafa jàng médecine war naa am culture te nekkub jullit nag moo tax may wax war na am culture bu yaato yaatu ci lislaam waaye mënut a tax mu nekk ab mufti nag kon kenn ku ne bu yemee ci lim xam dimbalanteeg ka ca des dañuy génne xam-xam bu am résultat moo tax boo seetee borom xam-xamu fiq yu mag yi dëgg-dëgg ku mel ne al ku mel ne Zarkashi ku mel ne euh, Ibnul Qayyim dañuy jàng masalam fiq ba mu yàgg ñu ne la loolu nag médecine la loolu ci xam-xamu tibb la aju waaye ajuwul ci xam-xamu fiq loolu li muy firi mooy ngir nga mën caa am résultat bu ñor dëgg dëgg dëgg faaw nga dellu nag ci koo xam ne loolu mooy xam-xamam moo tax masala yi ñuy gëstu nii suñ ko gëstoo ci côté sharia duggal suñ bopp ci wàllu médecine te diisoo wun ak borom xam-xamu médecine euh, te daf nuy yomb ki nga xam ne day gëstu ci wàllu médecine itam bu diisoo wut ak borom xam-xamu sharia bi ba noppi ne lii nii la wala du nii ci turu sharia njuumte daf koy yomb suñ dimbalantee nag mën nañoo àgg ci résultat boo xam ne bu ñor lay doon bu am njariñ lay doon moo tax jataay bu mel nii am solo jataay bu mel nii dafa am solo lool lool lool. Euh, man jàpp naa ne Sénégal war nañoo dem ba àgg ci ab académie boo xam ne dañ koy am boo xam ne diggante borom xam-xamu charia yi ak borom xam-xamu médecine yi ñoom ñoo koy séq jamono yone ñuy jàngat lu bees lu ne di ko xam di ci génne ay résultat di ko jéem a dund di tam ci suñu ndax lu am njariñ la. octobre bi ñu passé ci Caire fekke naa benn. rencontre bu mag boo xam ne conférence internationale la sax boo xam ne ci lii lay jëmoon man participation bi ma ca defoon mi ngi jëm ci annawasilu bi fil ibadat xam-xam yu bees yi nga xam ne médecine moo ko indi ci jaamu yàlla yi boo demee ci njàpp da ko cay fekk am na tey ay ndox yoo xam ne ndox yu bon la comme ni ngeen ko xamee ñu traité ko ba mu wëlbati ku nekkaat am ndox ndax loolu mënees naa dem ba di ci jàpp mënees naa dem ba di ci sangu boo demee ci julli fekk ci yu mel noonu nga dem ci koor dem ci mboolem masale sharia léegi dem nañ ba médecine àgg na ci li ñuy jëlee ci ku góor gi ak ku jigéen ki ngir doom juddoo ci am na ñoo xam ne ay couple jëkkër ak jabar dañ koy génne denc ko ne nañ ko garde fii cent ans ñi door leen a boole ñoom ñaar pour doom juddoo ci loola nga xam ne dana fekk ñëpp faatu nañ ba jeex mais lañ bindoon ci seen kees googe ne bu wax sàngam jotee nañ boole ñaari ndox yooyu ngir doom sosoo ci ñu door koo def su boobaa ci wàllu miraas yow tey kii nga xam ne da koy miraas gannaaw buñ gëstoo ba xam masala boobu dagan nag daganut ba mu dagan ba noppi ki ngay miraas tey te xam ne borom xam-xami lislaam nee nañ la woon ki ñuy miraas day su fekkee dafa bàyyi ab ëmb boo juddoogut fawu ëmb boobu ñu génnewale wàlle wàllam ndax kële nga xam ne seen boroom wala yaayam ak baayam dañ ne na juddu après cinquante ans ndax moom itam cëram ci miraas ma day génn wala du génn ay masale fiq yoo xam ne yu xóot yoo xam ne médecine nu ko indil te lii ñuy wax ni réalité la boo xam ne dafa am yëf yi def caa àgg loolu moo tax euh, masale yi noonu buñ ko jàngatee rek ci kaw euh, nin ko déggee ci mbokk yi jazaahumullaahu xayran euh, lu bari faat na ma ci ndax dama xëyoon jaar ci beneenub liggéey dañuy gis na lu bare bari li koy indi mooy boroom xam-xamu fiq bi léeg-léeg mu nuur ca règlement fiq yam xamoon su lu bees ñëwee it mu àtte ko àtte yooya su ko defee mën na koo yóbbee njaxas mais mais ni nga xam ne loolu mooy yoon fi mu nekk nii moo xam dañoo ñëw ci li ñuy wax yuur gu dee wala lu mu mën a doon kooku médecin moo ciy àtte su fekkee am na ñetti médecin yoo xam ne yu maandu lañ ñu ànd xool ni kii mënatul dund appareil yi nekk ci moom ñoo koy yëngal fii mu ne xol bi di yëngu euh, muy fonctionner mel ni kuy dund mais bu ñu koy dindi fi saa si muy dee te it mënatu la def neneen te it appareil yi mënut a continuer nekk ca bu faaw na parce que lu cher la itam mu ne su koo fay muy continuer def su boobaa ñoom suñ signé ne kii dee na dañ koy bàyyi mu dee dañ koy dindi xam ne foofa mooy mooy waxtu dee mais su dut loola mu nuy dugal mooy indi andi euh, takyiful fiqi bi ñu yoroon te doon ko dégg sànq xam nga ki lay wax ne. kooku daganul ñuy àtt ne dee na parce que asxaabul kahf yi am na ñetti téeméeri ak ca ca xunti ma mais loolu bokkut asxaabul kahf yi ñu nekkoon ca kahf ma ñooñu ay appareil yorewu leen moom dañ faa nekkoon di dund di nelaw kii booy dindi appareil muy dee ki lay wax ne istisxaabul asl wan la ne cosaan mooy nit ki day dund li fekk mais kii boo dindee appareil bi foofu la dund ki kon da lay wóor ne li tax muy yëngu nii nit a ko ci def waaye bu doon jëmmi kese ja dee na bu yàgg ay mbir la yoo xam ne faaw gëstu ko dafa dafa doy waa ki lay wax ne maye deret ak maye ab cër dañu jël li xiyaas ko ci foofu xiyaas bi xaw naa wuute ndax deret da ngay maye mu des fa loo xam ne mën na laa dundal bu baax a baax léeg-léeg cër yi am na ci yoo xam ne boo ko mayee day fekk dund nga nekkatu fa mu door faa mën a nekk ab xol ma ne su ko maye di dundaat xëy na rein mënees na ko maye ba pare continuer di dund waaye li ci nekk dafa yor boo xam ne li tax mu mën a nekk mooy nécessité ak aajo mooy tax loolu mën a nekk waaye ñu bañ koo aj ci kaw ne dañoo xiyaas nangam ci xiyaas ba tey atteb cër biñ dagg xam nga ki ne mënee su ko monteel nit parce que medd la medd la bu meddee day sobewu keneen ñëw ne ko déedéet ndax al mumin la yanjus xadisu abi hurayra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na eh, jullit bi du sobewu mais foofu yépp du gëstu bi gëstu bi mooy cër bi deewut su fekkoon ne dee suñ ko monté waate feneen du dund ku ko weddi nga dagg baaraam monteel ko nit du tax baaraam ba nekk fa di di di yëngatuwaat kon cër bu dee mënee su koo monteel nit cër buy dund moom lañu mën a monteel nit kon kon fard yab ne médd la sax kooku mënta nekk dëgg la borom mën naa dee bañ àtte ko àtte dee mais su cër bi desewul woon dara dara dara ci dund suñ ko monte feneen itam day dee boo dindee woon xol bi ci nit ki dugaloo ko fenn bàyyi ko fii une heure nga jël ko bëgg monteel keneen nit médecin yaa ngi nii xam nañ ne boo ko montelee du dund kon cër bi dafa am diggante bu muy nekk boo xam ne boroom ruux gi sax xëy na mën naa génn wala mën nañoo jàpp ne dee na wala attan na ne dee ba noppi ba noppi cër boobu continuer fonctionnement bi mu doon def bu ko tegaatee ci environnement bu mel ne bi mu nekkoon mu continuer di defaat li mu doon def kon diggante boobu dañuy jàpp ne cër bi donte boroom dee na moom dese na ak dund su boobaa nag dañuy takkale diggante dundu cër gi bi ak dundu boroom yu mel noonu day dem ba yóbbee na yu mel ne yi ñu doon dégg sànq ndax dañuy jël waxi médecin yi wala dañuy jël waxi borom xam borom sharia yi amul contradiction seen diggante li ñii di wax mooy li ñii di wax li am solo rek mooy ñoom fu ñuy jaar ba coordonné dégg naa sànq ko wax ne nit ki sax mun a may ab cër ndax yàllaa ko ko may te yàllaa ko moom kon li yàlla moom sañu ko maye bunt boobu soo ko ubbee dem ba ci xaalis xaalis bi nga yor yàlla la ko may kon mënoo koo may kenn su ko defee mbir mu mel noonu buñ koy gëstu faaw nun bu fekkee médecin lan nu yem ci xam-xamu médecine fekkee boroom xam-xamu sharia lañ yem ci wàllu sharia ba ba nuy jokkoo ñi nga xam ne ñoo yor wàllu médecine ba jàng ñoom ba àgg ci loo xam ne résultat bu am njëriñ la am na kayit bu ma jox fi léegi euh, xam naa aw sas wu jógee ci mbokk yi waaye <laughs> mënoon nañ koo àggale rek ndax wax dëgg yàlla li ma dégg ñu gëstu ko fii euh, laaj yu mel nii war nañ koo mën a euh, kañ la ñuy àtte ne nit ki faatu na ci lislaam xam nga dafa am yoo xam ne sharia dikkul wax la ne boo jisee lii xamal ni kii faatu na boo gisee lee xamal ni kii faatu na bu dee ci wàllum sharia loolu nekkul moo tax nit ñi ci seen i xam-xam ak seen i làmbatoog yu mel noonu lañu daan jëfandikoo di àtte ne nit ki faatu na maanaam médecine fii mu àgg tey bul jàpp ne dafay xëy àgg bu yàggoon nit ñi bu ñuy xool jigéen ji ëmb na ak ëmbut demoon nañ ba créer appareil boo xam ne day mel ne béjjén gis naa ñu dessin ko ci ay ay kii yoo xam ne jamono Ibn Sina ak ñu mel noonu béjjën boobu dañ koy teg fi tolloog xol bi kiñ ne mooy bi mu ñëw di ko déglu bu dégloo rek bu ne tuuti mu ne ah ñaari xol yëngu ci biir bi kon ñu xam ne loolu kon soxna si dafa tollu diggante te dañ ko doon xam-xam yi nu teel loolu léegi weesu nañ ko jën boobu kenn gisatu ko léegi ci ci hôpital yi boo demee suñ médecin tey yi sax boo leen wax ne béjjën amoon na bu ñuy dégloo eh, ku ëmb ku ëmbul ñu ne la ah loolu de nun noo ngi koy dooru léegi tey kon yëf lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe